baax et puis euh, malheureusement il y a une photo que que, que je ne pourrais pas euh, jàllale euh, muy ki nga xam ne ni mooy euh, Mohamed Niang tey la anniversaire am ça c'est le petit frère à Toutane c'est de la part de toute la famille et de sa fille Mariam Niang moo koy souhaiter un bon un anniversaire joyeux anniversaire à toi Fama que Dieu te protège longue vie à toi de la part de ton frère Saliou qui te souhaite beaucoup de bonheur euh... joyeux anniversaire aussi à je damay lire message directement voilà euh, c'est ça donc Fama jàll na happy birthday à notre maman d'amour Ramatoulaye mbay yàlla na la yàlla bàyyi ak euh, euh, ak njaboot gi yokk sa sutura euh, ci barke Seydina Mohamed tu es une maman exemplaire de la part de tous tes enfants liggéey bi nekk nga voilà je lis les messages directement moo tax day compliqué et puis joyeux anniversaire ouh là là hmm? Hmm? Montréal voilà ça c'est Montréal euh, ay message la yu ma jot de directement euh, donc joyeux anniversaire à Montréal <laughs> joyeux anniversaire à ma chérie Ndeye Anta Mbaye euh, depuis Canada longue vie santé et beaucoup de bonheur surtout réussite euh, dans tes études de la part de ta tante euh, Adia joyeux anniversaire à Bijou Ndiaye yaayu Rabi c'est de la part de toute la famille euh, Ngom cinq ans que tu illumines nos cœurs cinq ans que tu nous donnes la joie de vivre et la force d'avancer grandis euh, princesse en sagesse et en paix love you petite maman d'amour la petite s'appelle Abi Rokhaya Thérèse Konaté souhaite joyeux anniversaire euh, à Anne-Marie euh, Frenzné, je pense que j'ai bien prononcé, c'est en France, longue vie à elle. Alors Toutane, il se trouve que c'est une télé, la photo que je viens de recevoir, mënul yegg ci biir machine bi ba traverser fil yi pour passer à l'antenne. Voilà. ba leer na li ma wax rek vous avez compris voilà mais je t'embrasse Mohamed Niang joyeux anniversaire et puis euh, je vois encore une autre photo où c'est marqué ha ha ma kan mooy def anniversaire bi moom laa lire léegi super d'accord parce que damay lire message Euh, dama yàkkamti dama war a dem léegi nii ci rajo bi donc j'ai pas eu le temps de préparer les photos tout ça voilà dama war a dem léegi nii King FM joyeux anniversaire à Ousseynou Diallo euh, chéri euh, Dama Sidibé à Thiès longue vie et beaucoup de bonheur Mas Ndiaye jërëjëf joyeux anniversaire à de cœur Nafissatou Diagne dundal ba doyal longue vie et de bonheur et puis joyeux anniversaire à Mame Cheikh de la part de El Hadj Malick Faye nekk fi nga xam ne nii mooy Kër Massar voilà euh, j'ai vu une autre photo Kumuru ak euh, Tata Nafila

kooku suñu doom la Mohamed Dam Sey euh, doomu Serigne Medoune euh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax Sidna Omar Ngom sama xarit euh, yow it ñu ngi lay <laughs> bégee Mohamed Niang merci voilà c'est des messages yu may jot léegi nii di ko lire en même temps donc peut-être demain on passera yenn ci photo yi nga xamante ni jotul jàll mu ngoog fi la ñuy jaaree jeexal yeewu leen bi on va se quitter ak Fatou Guewel mi nga xamante mu ngi nas programme am le 29 juin ca théâtre national Daniel 19 juin on vous a donné le numéro de téléphone wayam bi la ñuy euh, jeexalee merci Exidex merci euh, rendez-vous en tant qu'auditeur léegi nii King FM pour m'écouter voilà dama yëg ak yow alaaji <laughs> sama neex na ni ma ko waxee sinon euh, demain inchallah on revient Pape Cheikh sinon di nuyu nag sama mag ji donc Fadda ba foofu ca Gambie mm. ah, baax nee naa ko yaay taaw vraiment uuf nga ñu macha allah yal na la yàlla may gudd fan at wér gi am donc Fatou Dabo ñu ngi koy maa ngi koy nuyu foofu ca Gambie ak Ndeye Awa voilà moom it ñi sama ñaari mag yi boo jógee Gambie damay bifurquer Diourbel nuyu waa émergence euh, au féminin euh, waa Diourbel yooyu da nga am nga grâce yokkute am na émergence euh, émergence au féminin